mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi ñu tàmbale ko rek ak jëye ja am ca Vélingara Ferlo foofa benn soxna la ab sàmba booy fekk mu yegg ci koom ba pare daal di koy faat ci anam yu ñaaw dañ ci ànd sax ak Modou mbay suñ correspondant ca département bu Linguère beneen jëye bi it laal campagne électorale bi waa Osez l'Avenir ca Podor ba ñu tëj seen meeting ba am na benn ndaw boo xamante ne atam tolloon nañ ci ñaar fukki at ak juróom-ñett moom nag la courant mars mu daal di ñàkk bakkanam mu ngi doon wuyoo ci turu Abu Ba loolu it dinañ ci ànd ak sunu envoyé spécial ca podoor di Alassane baa ca jamono jooju it mbiram élection yooyu tax na rek waa société civile dajaloo démb ñi ngi sàkku rekk ci acteur yi ñu ànd ak dal ñu voté ci jàmm joxe résultat yi ci jàmm lépp it ñu teg ko ci yoon di ci ànd ak ñoom waa société civile yooyu ci jamono jooju nag xam ngeen ni tey jii ci ajuma ji la bu minuit jotee ci la campagne électorale bi di tëj ba tax na rek candidat yi ñi ngi tëj seen ay meeting tey jii daanaka ñu ci bëri ñu ngi ci Ndakaaru ak yeneen i diwaan diwaan ngir rek daal di joxe seeni message sàkku ni dinañ leen votel dimas ñu nar ci am gan di Bernard Casimir Cissé moom moo yor kàddu ko direction générale des élections ñu nar ànd moom rek ci organisation yooyu jongante mbokk yi su ngeen taaxir loon yaatal xibaar leen jàmm ci xibaar yi ni ma leen ko waxee dañuy dem ca département bu Linguère rawatina Vélingara Ferlo am na jëye ju ab soxna bub Samba booy daal yegg ci kawam faat ko anam yu ñaaw Modou Mbaye ginnaaw bi ma lu nuyoo ndax mën nga delsi ci musiba bi. waaw Chérif euh, maa ngi lay fay bu baax euh, ni nga ko waxee rek euh, noonu la ci mi ngi ak mbir mi nag mi ngi amee ci benn village boo xamante ne mi ngi tudd Saldaaw nekk fukki digganteem ak lii di village bu Vélingara Ferlo commune bu Vélingara Ferlo mi ngi toll ci fukki kilomètre ak juróom muy soxna soo xamante ne rek am na lu tollook ñaar fukki at ak juróom-benn bàyyi fi nag tey ji benn borom kër ak ñeenti tout tànk moom nag moo demoon root ci li muy wàññeeku nag. ci la amee benn sàmba booy boo xamante ne daal na koy dogaale daal koy sàkku daal koy euh, faat ci anam yoo xamante ne anam yu yu ñaaw la jamono ji nag euh, moom euh, corps bi mu ngi fële ci morgue bi nga xamante ne moo nekk fële ca Ranérou Chérif. ñu ngi lay sant di la gërëm Modou mbay ñu des ba léegi ci campagne électorale bi. wax ni moom campagne it ca xaw naa am rek benn jéeju fa am ndax waa Osez l'Avenir ba ni tëj seen meeting foofu am na ndaw ay atam toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett di woyo ci Abouba moom courant moo ko maas ba mujj ñàkk bakkanam sunu envoyé spécial ca Podor Alassane Ba mi fa nekk ngir rek yegge ñu la xew ca élection yi moo ñu ko xamal Alassane ginnaaw bi ma la nuyoo ngeen yegg ca Podor yam ci musiba boobu Alassane. allo ndax mën ngaa del si ci loolu it ndaw li nga xamante ni courant de commerce démb ba waa Oser l'avenir di tëj seen meeting ca Podor l'avenir ñu ko doon amal fii ci Podor euh, ndaw jooju nag nee nañu courant moo ko maas ci photo bi nga xamante ni bâche euh, bi ci la nekkoon euh, léegi dafa laaloon bâche bi mu électrocuté wu ci la ñàkk bakkanam nag mu ngi tudd Baba gale abu Ba euh, mooy turam dëgg waaye Baba Galle lañ ko gën a xamee fii euh, dem nañu nag ci ay mbokkam kër mbokkam waaye foofu euh, naxar ak tiis lañ ko fekk nee nañu nag jamono ji mu ngi ci loxolu police Euh, gendarmerie euh, ñoom dañu bëgg a def li nga xamante mooy ay enquête ngir fexe ba xam exactement ce qui s'est passé euh, donc loolu moo fi jot xew muy li nga xamante ni muy muy muy drame ci ndaw jooju toll ci ñaar fukki at ak juróom ñett mhm. mu ñàkk ci bakkanam ci bi nga xamante ni Osez l'avenir ñu ngi doon amal seen meeting de clôture ci campagne législative yu fanweeri fan yu dimanche yi incha allah jërëjëf Alassane Ba sunu envoyé spécial kon foof ca Podor ñu des ba léegi ci ci Sénégal nag muy dimanche ba tax na rek waa société civile ñaari kuréel yi di COS ak pacte di rek ñoo xamante ni daal ñoom dañoo bëgg woote jàmm ci yooyee élection sàkku ci acteurs yi ku ci nekk daal nga dem vote ji jàmm ñibbi si jàmm bëgg na nit waxtaan am diggante yooyee acteur maanaam ñi séq géopolitique bi ñu ànd si ak Abib Faye ak Younous Diatta gannaaw bi conseil constitutionnel joxe xalaatam ci laajum njiitum réew mi ñii di waa COCE ak waa pacte lëkkaloo joxante loxo ngir élection yi jaar ci yoon ànd ak jàmm. Sénégal ni ñuy defee politique euh, dafa safaanoo ak ni ñuy defee politique ci démocratie yu mag yi. Sénégal depuis quelques années dañu seetlu ne li ñu li ñu gën a euh, privilégié mooy compétition bi rek. dañu war am ay consensus sur les grandes questions. benn fan des ci wooteeg fal député yi ab toog waxtaan déggoo dootul lu mën te am ci diggante nguur gi ak waay ujji gi di xalaatu njiitu pacte Machid Ndiaye. ni ku nekk defe nga ne yaay waaji yaay gagné donc bugguloo perte temps ci leneen ci lenn euh, da nga bëgg a nasaxal keneen ki pour nga mën koo gën a gagné donc seen jot yëpp dañ ko def ci loolu. constitutionnaliste bi gis ne waxtaan lu war a mën a am la ngir moytandiku lépp luy nasaxal woote yi. acteurs politiques yi noonu la ñuy politiquer seen li ñu seen xalaat yëpp mooy jongante xeex euh, dalante ku ku ku gañe waaw yëkkati sa loxo te politique du loolu rek. société civile bu Sénégal taxaw tëmb ngir politiciens yi jiital intérêt askan wi maanaam woote yi am ci jàmm mu bañ a am njuuj njaaj ñu teg ko ci yoon bu leer nañ beneen kuréel a ngi ne it yëglu di fédération bi ëmb way laago yi ñoom it bëgg nañ rek ñi nga xamante ni jotagun seen i carte ñu bàyyi leen ñu voté ak seen carte d'égalité des chance bëgg na ni it leneen maanaam ñu mën a superviser maanaam saytu jongante boobu di yooye élection wax na nit seen yeneen jafe-jafe maanaam nun mën a def rek ba ñoom it di joxe seen xalaat bokk ci penc mi comme ñeneen ñëpp Pape Fara ñu ngi Youssou Baro ndogal bi conseil constitutionnel jël ne mën nga woote ak benn kayit boo xam ne dinañ la ci ràññee euh, boole ci ak lii di sa récépissé loolu tax fédération bi yor wàllu way laago yi ne ñoom daal dañoo bëgg a woote ak seen carte d'égalité de sens yi nga xam ne moom leen jox rawatina ci ñi nga xam ne musu ñoo woote. yàlla dafa def amuñu doole ju ñu buuxante bu dee buuxante rek ñëpp dinañ jot seen carte ba mu des ñun moo tax ñu bëgg ñun tamit handicapé yi nga xam ne ay primo inscrits lañ. bu ñu jëlee bu ñuy ñëw ju voté ñu mën a joxe seen récépissé boole ko carte d'égalité des chances parce que carte d'égalité des chances mën naa nekk document d'immatriculation mën naa nekk document boo xam ne mën na ci identifier nit ki. ñuy dund ak way laago di ñaawlu bu baax a baax ni nga xam ne wàllu wot nii lay doxee fii ci réew mi ndax jàpp ne njiit yi bàyyiwuñu xel ci seen laago. participation politique et citoyenne maanaam nan la ñuy def pour ko way laago yi mën a bokk. ci wote yi bokk ci wote yi nag pour ñun mooy ñu mën a nekk candidat librement mais mooy également ñu mën a ñëw librement voter mooy ñu mën a xool candidat yi jongante kan la ci moo ñu ci doy pour ñu voteel ko daal mooy ñu fexe ba silmaxa bi ak tëx bi ak bépp xeetu laago yi kenn ku ci nekk choix booy def mu nekk un choix libre ci ndimbalu ONG bi di Sight Saver ñoom ñu daal di tàggat ñi nga xam ne ñoo ay observateur ngir ñu ñëw saytu lépp lu xew ci wàllu élection yi. mën a am ay observateur mais ñun li ñu gën a yitteel bii yoon mooy ñu xool ndax bureau de vote yi dafa nekk ci étage mooy ñu xool ndax bureau de vote yi xatul ba nga xam ni nit ki bu ñëwee ak puus-puusam du am problème pour dugg ci isoloir bi ngir fexe dugal seen loxo ci wàllu politique bi ak dund bi ni muy doxee fii ci réew mi mbootaay way laago yi moo taxoon ñu amal ab lël fédération bi daal moom lu mu bëgg mooy ay député yoo xam ne jóge nañ ci seen boobu mbootaay dem ci assemblée nationale. am na solo trop euh, li naan tungu ne du teew ñu netaal Bernard Casimir Cissé ginnaaw bi ma la nuyoo yooyu ay porte parole direction générale des élections yéen a élections yi euh, ginnaaw bi ñu la nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy way laago yi ñoom bëgg nañ ñu bàyyi leen ñu voté ak seen carte d'égalité des chances rawatina les primo inscrits ak récépissé ndax mënu na. Euh, li ma ciy jëkk wax mooy rafetlu déjà ñoom seen passe-passe parce que ñoom dañoo déposé ministère de l'intérieur demande pour ñu mën a observer élec élection yi ministre de l'intérieur nangul leen ko. donc ñoom mën nañoo observer élection yi waaye li ci président yat ma wax léegi léegi nii dafa di loo xam ne yoon mayewu ko parce que dañu ne document d'immatriculation la seen yéene gi rafet na mais document d'immatriculation la document boo xam ne du lu bees waa direction de l'automatisation des fichiers ñoo koy joxe donc carte d'égalité des chances bokku ci. bokku ci mhm. supervision boobu ni mu demee ñoom pour personne handicapée. waaw xam nga yoon moo maye ne élection bu jub siwee dañoo. nguuru Sénégal ubbi na possibilité pour que nit ñi mën a observer di ay observateurs nationaux di ay observateurs internationaux. Hmm. te fi mu nekk nii ci li ñu jot ci ay demande sax dem na ba ñaar fukki demande yoo xam ne fukki fii ci niveau wu Sénégal ak ñaar fukki yoo xam ne bitim réew la jógee bu ñu nee bitim réew nag am na ci yenn yoo xam ne ay ambassades la sax. Hmm. léegi nag ñu ñëw ci document d'immatriculation parce que conseil constitutionnel wax na ko ci avis bi mu ñi mën a voter ak jumtukaay bëri leerut seen bopp lan mooy document d'immatriculation pour précision. document d'immatriculation dafa di document boo xam ne daaf yàgg na di ko joxe ñii ñëw di bët ut si carte d'identité wala ñii ut si passeport léeg nga bëgg am sa passeport fekk sa carte d'identité génnul daaf dafa am benn document bu mu lay jox pour won la ni diw yow la te sa numéro baa ngi nii. document boobu ñëpp ñoo xam ne ñi daan dem euh, passeport daanoon nañ ko am. Mhm. te dafa di document boo xam ne nii lay mel waaw nii lay mel. Mm-hmm, borom photo bi na ma jégal mm-hmm. parce que euh, photo moo ci ne. voilà donc document bi nii lay mel boo ci gisee turu nit ki moo ciy nekk ak numéro boo xam ne mooy numéro immatriculation daaf dafay wane ne kii moo ngi ci suñu état civil kii xam nañu ko. Mm-hmm. doomu diw la ak diw. mooy document d'immatriculation euh, du beneen document boo xam ne mën nañ ko wone donc euh, service daaf moo ngi koy joxe te ñoom fu ñu toll nii tembe ñoo ngi fexe ba ñu mën ko décentraliser bu boobaa du fa du soxla nit koo xam ne sori na biir réew mi soxlaa ñëw fii ba dakaar mm-hmm. dañu ministre de l'intérieur jël na ndogal. mooy nit ñi ñu mën a déplacé wu ci sous préfecture ya ak ca préfecture yi ñooñu. am pour am document bi. voilà donc ñi ñu doon wax naan gis nañ ko di railler un peu di wax yeneen document ba ci carte étudiant ak yooyu donc il faut ñu dem ci. administration pour ñu jox leen document effectivement document bi du document boo xam ne ku ci nekk dafay jóg rek jël sa permis de conduire sax bokku ci. Mhm. du document bu la neex rek nga yëkkati da ngay dem ci service yi nga xam ne préfecture la ak sous préfecture sa photo. Euh, ñu génneel la document bi mais document bi am na ci leen loo xam ne. Mhm. lu am solo la ñu yëkkati ko mooy ni. boo yorewee sa récépissé ñëw tamit balaa ñu koy jox dañuy xool ci liste d'émargement bi ndax yaa ngi fa mhm. ñu génnee sa numéro parce que sa numéro euh, d'identité moo ngi ca mhm. ñu génnee la numéro boobu tappal la ko mu wóor ne diw la te moo ngi ci bureau sangam moo ngi ci liste d'émargement bi ñu jox ko gis naa sax ñu bind si ne votre demande d'immatriculation a été acceptée en effet vous avez bi joxe date bi ak numéro bi. effectivement ci direction d'automati de l'automatisation des fichiers. moom la jox nit koo xam ne dafay laaj passeport wala nga ut carte d'identité fekk sa carte d'identité génnagul nga war a dem defar lu ji passeport. nga xam délai yi nag gàtt na nga ne kon dañuy dem ci administration pour am document yi kon. maanaam ñi nga xamante ni bindu nañu ton jotaguñ seen carte ñoom la concerne. effectivement kon message mooy il faut ñu gaawtu dem. effectivement wala administration liggéey ba jour élection xam nga administration boo xoolee sax ñun euh, du rek du ñu sax réquisition pour loolu waaye bu jub siwee du bëccëg du guddi da ngay liggéey non stop. donc ñun yàgg nañ ci loolu moom la ñu xam te bu ñu demee nii ci préfecture yi ñoom dinañu fa liggéey. Hmm. li ñuy ñaax nit ñi rek mooy ku nekk ci situation boobu am sa récépissé te mu wóor na yaa ngi ci liste yi bu la wóoru tamit boo fa demee du ñu la ko jox te nekkoo ci liste yi. Mhm. parce que yoon dafa am ci lii lu mu wax ci ñan ñoo war a mën a wote buñ ci eggee xëy na ñu faram fàcc ko. leneen quoi ba léegi ci précision yi parce que gis nañ ko ci débat yi maanaam récépissé bi moom foog mu nekk sa loxo. waaw récépissé bi foog mu nekk ci sa loxo. te récépissé boobu am na ci leneen loo xam ne nañ ko wax léegi sax mooy ni doyut récépissé boobu doyut foog mu am lu mu àndal récépissé bi bu fekkente ni ñii la foog ñu dem ñu utal leen document bi xam nga ñooñu amuñu carte d'identité amuñu passeport amuñu leneen document bi am seeni photo mooy firndeel ne ñoo ngi ci liste yi te photo ba dina wone ne kii indi récépissé bi te mu nekk ci liste yi kooku moo nekk ci suñu kanam kooku moom moo mën a wote. Mhm. faw nga nekk ci liste yi pour mën a wote. Mhm. mbiram saisine ñëw ñëw ci chiffres ba léegi ci retrait carte yi boo boo ñu doon defal point bi parce que aussi buñ fàttali ñu jotagul seen carte te seen carte génn war nañ koo mën a récupérer parce que joxe ngeen fi koroog ay chiffres ne 3 millions yoo 600 mille millions de cartes yoo xamante retiré nañ ko muy 70 virgule 36 pour cent sur 5 virgule 5 millions de cartes produites. ñu bëri nee nañ mënuñoo vérifier chiffres yi nga xamante ni joxe ngeen ko. alors puisque boobu mooy seule source a ci mën a am ñu gëm ñu wala ñu indi yeneen chiffres yoo xam ne du loolu. Sénégal est-ce certainement dina évoluer parce que def naa tourner tout la région de Dakar ànd ak tous les préfets ba guddi 23 heures moo ngi ma fekk barki démb ci commission ya chiffres yooyu ba ñu koy wax man maa ngi sur le terrain lii évolué na parce que mënta wàññeeku lii évolué na parce que nit ñi ba ñu gisee mesure ñu jël te mu wër leen ni seeni carte ñoo ngi ci commission ya fa ñuy wotewee parce que boobu moo gën a yombati parce que bu njëkk bi dañ leen daan wax ne dem leen préfecture sous préfecture te carte yi dañu leen yóbbu teg leen ci seeni bureau bureau watekaay nit ki ci xawoon a taayal sax ne duma dem préfecture boobu gën naa yomb ci moom kon chiffre yi évolué na mhm. des na ci nit ñi nag képp koo xam ne gëmu ko xanaa nga indi yeneen chiffres yoo xam ne moo gën a leer yi. yeneen waaw saisine conseil constitutionnel bi aussi débat la ñu ne ñu bëri jàppoon nañ ni jaru ko parce que dañuy violé li nga xamante mooy code électoral boobu doon sàkku rek sénégalais bi maanaam électeur bi voté ak carte biométrique bu CEDEAO lan moo tax ngeen jugé opportun rawatina ñu def lii ba saisir conseil waaw dañu koy delloo ki ko initié di njiitu réew mi. la ma ci mën a jàpp ne mooy nit koo xam ne xëy na déglu na njabootam déglu population yi parce que ba mu gisee ni nit ñaa ngi laam-laame ñii di ñaxtu moom dafa ni li ma gënaloon mooy ne ñëpp mën a wote je pense que bu fekkente ne am na lu ñuy rafetlu mooy loolu la jëkk rafetlu mais moom def ci jàpp ne aw ma ndogalu ne ñëpp nañu wote naa dem gisi ji conseil constitutionnel mu xelal ma kooku la mu ci wax leer na mooy décision bi ngeen ci am lañ ciy mën a jàpp ne mooy ni conseil décidé na ñun dañuy organiser élection lañ ciy nam mooy ni nit ñi bu ñu ko jàppee woon ni ñu bëri duñu mën a wote te con euh, constitution moo ne citoyen boo xam ne nekk nga électeur te nekk électeur du con constitution moo ko wax dañu ne nañu dem sukkandiku ci euh, code électoral nekk électeur da ngay bindu ba pare yore sa carte mais liiral décision bi conseil dafa ni le législateur a entendu mooy ne bu ba muy fixé ne nga yore sa carte ba pare bindu dafa ni nit ñi ku ci nekk boo nekkee ci liste yi war ngaa mën a wote donc euh, dama yaakaar ni mesure la boo xam ne may na nit ñi ñu mën a wote ñun dañ koy appliquer dañu koy dañuy organiser mais conseil dañ du cëram moom nekkut législateur lu defar ay loi da koy interpréter rek rawatina constitutionnalité loi yi bu fekkente ne dem na ba def nii est-ce que du nekk loo xamante ni mu def mu def jurisprudence compliqué ba député yi ni fal sax ñu war a voter loi euh, ñu naan seen njariñ lan laa la xam nga yoon dafa def ni code électoral dafa suñu système électoral dafa am ñett ña ne benn bi mooy kii organiser kakay saytu ak justice mu toog ne bu fekkente ni jaarut yoon ma teg leen yéen ñëpp ci yoon man sama cër ak ñun suñu cër mooy organiser élection mm-hmm. liñ ci namm mooy ne nañu fexe nit ñi mën a wote ji képp koo xam ne nag d'accordoo ci ñaar a ngi ci nga gis Sénat mm-hmm. mais am na ci ñetteel boo xam ne moo tegu suñu kaw ñun ñëpp nañu xool kooku mooy troisième OGE mooy justice ne lii d'accord ñu ci yoon teg ñu ci yoon ñun lii suñu cër mooy ne nañu organiser élection. joxoñ na leen tamit baaraamu tuuma yéen ñi organiser ne peut-être bu ne président saisir conseil yóbbee ngeen ko ko parce que yéen ñi organiser waroon ngeen a xam délai yi ba ni sénégal yëpp duñ mën a jot seen carte ba ñu bëri sax. naan euh, incompétence am na ci bu dee kàddu gi xaw na dis nga jëgal ma loolu la gars yi wax. déet kàddu gi sax du mën a diis parce que loolooy suñu cër gis nga lii di service ak sacrifice bu ñu ci nammee incompétence ña koy wax parce que du sa du du du sax yaa ko wax mais ña koy yëkkati foog naa ne boo leen seetloo booba ba léegi. gisoo ci kenn koo xam ne wax na ni administration électorale bu Sénégal dafa incompétente ma lay fàttali ne bi ci gënoon a métti moo nekkoon élection locale 2700 listes bi ci nit ñi di dem ku ci nekk yaa ngi yëkkati woon say loxo jàpp sa bopp ne du mën a wéy administration électorale def ko noppi fëggu ci dënnam lañ ci waroon def rek moom la ñu def bii nii nit ñaa ngi réeree mbir ne 47 liste la woon boo leen fàttalikoo ñëpp dañoo taxaw ne du mën a ne te 47 liste yooyu carte d'identité yi moo ngi fexe sax nëbb loo xam ne fonctionnaire moo ngi koy def lii ñuy def nii te Sénégal def ko te ñu organiser élection yoo xam ne 300. vingt neuf millions de bulletin la ñu tas ci biir réew mi mu nekk plus de deux mille sept cent tonnes de matériel ñu yëkkati ko def ko xëy na carte yi am na lu mu ci nëbb mais bu fekkente ni ñoom ñoo wax ni ñun dañoo incompétent euh, mën naa kañ de ña nekk direction générale des élections parce que xam naa ni bu fekkente ni am na ay jàmbaar. bu ñu wax sax surtout daaf la ah, parce que ñun ñuy defal carte d'identité la lan nga yaakaar ne moo tax ñu yegg si fii kon ba carte d'identité ñëpp jotoon seen bos. Ah, xanaa nga laaj ko daaf. mais ñooñu waaw ay partenaires lañu te ñoom leer na ma ni def nañu seen këmtalaay kattan mais am na ci yenn yoo xam ne ñoom la ñu koy laaj mhm. mais leer na ma ni lañ ci mën parce que du ñoo xam ne ay yaafus lañu ñoo xam ne dañuy taxaw def leen loo xam ne safaan la mhm. léegi nag ñi dimanche la vote bi ñu ñu ngi ci euh, minutes yu mujj yi naka lan mën a def ba lépp tegu ci yoon parce que ñu nee nañ sax affaire récépissé yi mën na indi confusion bi yoon mel nan lañ def ba ki nga xamante tamit peut-être changé nañ bureau de vote am te mu yor récépissé xamut fu muy voté mën a dem directement vote ji te du am jafe-jafe. effectivement mooy ñaareelu mesure ba ba ñu waxee ni nit ñi mën nañoo utiliser seeni récépissé booba boo ma mayee ma jëkk a fàttali ne ñay utiliser seen récépissé récépissé bi rek doyut. Mm-hmm. foog ñu indaale carte d'identité buy wane ne même bu fekkente ne bële la woon nit ki la lii ñu daan faram-fàcce léegi léegi ni mooy nit koo xam ne amut carte d'identité amut passeport kooku bu boobaa foog mu indi document bii nii boobu mooy première mesure mesure bi mooy ne du waa daaf au niveau central ñoo koy def dañu ko décentraliser première mesure ñaareelu mesure bi ministre de l'intérieur dafa ni autorité administrative yi dès l'instant que kii nii récépissé am mayu ko mu xam ban mooy bureau de vote am mais mën na ko may mhm. moom mu xam xëy na fan mooy centre de vote am na ngeen fexe taf liste électeurs yi ci centre de vote yi mhm. may citoyen bi au lieu que muy rang ba egg mu mën a rek vérifier ban mooy bureau affiche ci buntu centre ñoom jot nañu instruction préfet yi ak sous préfet yi ci mën ñu mën a taf loolu mhm. te ñoo ngi ciy xar seen tànk tubéy nga may ma rek ma delloo leen njukkal ñoom parce que ñun dañuy organiser mais la ñu ciy daj ñoom ñoom kese ñoo ko xam te ay jàmbaar lañu ñu. Mm-hmm. mbirum électoral mooy laaj mujj ñu bëri nag nee naan euh, rawatina bi ñu defee refonte refonte beeg ak coow li ñàkk euh, dialogue bi nga xamante ni amu ci woon moo moo juree ñu yëpp nag ban message ngeen lancé ak acteur yi ba wóolunte am ba lii tamit euh, mu jeex fi dootul am. waxtaan li ma ci mën a xam mooy ni 16 juin ba 3 août ubbi woon nañu waxtaan yoo xam ne moom mooy fexe ñu togg code électoral bii nii. mooy comité technique revue du code électoral def nañu ko 16 juin ba 3 août. naam am na ci ay kàddu yoo xam ay ponk yoo xam ne déggoo nañ ci mu am yenn yoo xam ne ay réserve la mu amoon ay kàddu euh, ponk yoo xam ne euh, benn pàcc ci ku gi àndu ci woon. mooy maanaam mbiri refonte bi mais def nañu refonte bi refonte bi liñ ba ñu ko defee tamit nit ñi dañu ne woon mënoo leen fexe am 4 million du sotti loolu baax na tamit ñu dellu siwaat ci. ngeen dépassé ko yéen dañu ne woon mënoo leen ko def ñu waxtaan ak chef de letat boo leen fàttalikoo mooy seen waxtaanu premier décembre waxtaan ak moom nekk na nga fexe siife ci loi bi ne bu ñu eggul ci 4 million nañu utiliser beneen fichier bi. bu yàgg ba booba sax moo nekkoon première fois à la sax ñuy def loi boo xam ne dañ cey chiffré def ci ay objectif chiffrés mm-hmm. mais ñu jot ci ay ndigal ne nañu ko def ci loi bi. ngeen ñu fexe dépassé 4 million bi dem ci 6 million li ñu ciy mën a wax rek mooy ni du suñu coobare du lu ñu gënal mu am ay citoyens yoo xam ne du ñu wote bu ñu sañoon ñëpp mën a wote. Mm-hmm. lañ ciy mën a wax mooy nii am nañu chance fii Sénégal lu muy metti metti metti yëpp am na ñu yoon goo xam ne mën nañu fa jaar. Mm-hmm. gis nga ñun 2012 administration ba ñu jëlee décision ne. Mm-hmm. dañuy toxal ay bureau de vote def ko délocalisation fonctionnelle toxal ko ci loo xam ne dañu yaakaar ne fii kenn mënu fi wote ñu dem tekk à côté. cour d'appel à l'époque Ziguinchor la woon dafa ni ñun yëguñu ko ñu annuler quarante biro de vote di wone ne administration ñun dañuy organiser mais yoon moo ngi taxaw ne lépp li ngeen ci def loo xam ne safaan la ñoo ngi taxaw te li ñu mën décider te ba ñu ko annuler est-ce que administration technique ci baat tegu ci baat vote boobu dañu ko annuler am na ñu ay yoon yoo xam ne moo ngi fi ñu jaar fa leer na ma ni moo gën. fexe kon transparence dina am ñëpp mooy suñu cër moom la ñuy dox. jox ngeen gaa garanti bi ne lépp dina tegu ci yoon. amuñu beneen pexe. Hmm. parce que ñun mënuñoo sàcc hmm. mu ñu moo woteel nit. même bu fekkente ni ñun am nañu droit de vote te dinañu wote incha allah ñun dinañu wote am nañu droit de vote mais amuñu pexe wu sàccal nit amuñu pexe wu buure urne amuñu pexe yóbbu ba ma may la ci benn gis nga bu ñu génnee ci bureau de vote yi immédiatement dañuy afficher bureau euh, résultat yi te dafa procès verbal bi original bi. bi nga xam ne moom mooy wax ne ñii ñoo gagné lii moo xew ci biir bureau de vote bi bañ nañu sax dañu ne plan de ramassage bi trois jours maanaam le 26 bii dernier dañ koy yeggee Sénat wax ne procès verbal bi bu mu jàdd fenn fenn fenn fu dul ne dañu koy yóbbu commission départementale de recensement des votes. Mhm. administration bu ci mënoon a labaj. labaj kon mhm. ñu ñu def ko te amuñu ci pexe. am na solo laaj bu mujj bi <laughs> bala ñoo tàggoo parce que am na solo mooy mbiram 47 liste yi amoon na fi coow. def ngeen kii bi ba xool salle de classe yi naka la ni disposé yëpp ak beneen bi mooy it mandataires yi est-ce que du xat. Euh, ñoo ngi jógee ci régions yi def 14 régions wu dëkk ba rien que pour former. waxtaan d'abord ak autorité administrative former seeni membre de bureau de vote ñoom ñu defaat tamit même formation bi ñu dajale lépp loo xam ne plénipotentiaire la au niveau des région et départementales pendant une semaine ñu waxtaan ak ñoom ku ci nekk ñu xamal la lan mooy bureau de vote ak nañ koy organiser we naam biir école yi ay salle de classe la am na ci ay zones yoo xam ne quarante 47 personnes bu ñu fa najee naree daje mën na am mu metti mais ku ci nekk wax nañ la naka lañ koy organiser te wax nañu ay pléni ak seeni plénipotentiaire mm-hmm. te li ci yéeme li ci yéeme mooy ne la ngeen di dégg ni ci biti en tout cas ñun plénipotentiaire yi ñu fekk ci région yi ñu mm-hmm. responsable lañ fa fekk mm-hmm. ñi jël seen décision ne li leen gënal mooy ne nañu organiser mbir yi ku ci gagné mu jàll donc def nañu yooyu formation di am yaakaar ne bu naree metti xanaa xol yi bu ñu leen boolewee xëy na mën nañoo dépasser le 30. maa ngi lay di la gërëm Bernard Casimir Cissé moom mooy porte-parole direction générale des élections ñoom ñooy organiser kon élections yi ñu ñaan rek yooyu élection am ci jàmm ba ca jamono jooju nag candidat yi moom daanaka bisab tey bi rek moom moo leen dese ngir ñu daal di tëj campagne bi tëdd liste coalition benn bokk yaakaar di premier ministre démb ma nga woon ca Géejawaay. moom nag euh, profito na ca occasion ba rekk euh, daal di xam ne ne ñoom seen coalition boobu dinañ am ndam stade ba feesoon euh, dell Mouhamed Boun Abdallah Dionne dellusi na it ci Abdoulaye Wade même jàpp ne daal dafay nekk rek di def loo xamante ni tegu kuur ci yoon ñu déglu ko ci micro Salif Sow. waxatuñu 30 juillet léegi 2019 la ñuy wax moo tax moo tax moo tax sànq may ñëw. maa ngi dégg ah benn coalition defe naa seen waa ji fii sax ngeen euh, tëral di waaj a <laughs> ngeen di waaj a sëlëm ci suuf si ma ne dégg naa te coalition boobu la wax ñu def conférence de presse lu ñuy wax waawee ku daanu ci saret naan dañuy frôler ma ne dëkk bi bu frôle mënoon a am Abdoulaye Wade daanu ma ne mi bu ñu doon mënoon a am ak état de conscience kon Ablaye Wade daanu maa ko wax pour woo xam ne fetal na fi ñaata nit pour troisième mandat bu Soros mënoon a am kooku du daanu ñaata di keroog 23 juin ma ne fii vote mënatu fi comme yegg si nañ ci cëppandaw boobu campagne nag jamono ji euh, bilan la ñu def ba tax na ca Ndar ñett département yi ñaar fukki fan ak benn ngi nii daanaka yëngu-yëngu taroon na fa trop candidat bu nekk def nga sa kémtulaay kàttan ba askan yu mën laa déglu benn yoon rek lañ ci nemmeeku ay fit na ñu ànd ci yàggu Seynou Diop Habib Seck campagne électorale bi ci diwaanu Ndar Géej ñi nga xamante ni ñooy candidats yi ak coalition yi daan nañuy tëj ak meeting ak i caravane yoo xamante ni amal nañ ko ci gox-goxaat yi diwaanu Ndar Géej nag li ci gën a fës ci njeextalu campagne bi mooy ñu gën a ko soqali ak ressources naturelles yi nga xamante ni am na ko jëm ci wàllu pétrole bi ak gaz bi. mais aujourd'hui yàlla def na le gaz et le tey gaz ak pétrole feeñ na ci ndar loolu day wane ni Ndar Géej doon na dëkk boo xamante ni dëkk bu am doole lay doon. dëkk bu ñëpp di ràññee ci wàllu économie léegi nag war nañu gis ni Ndar dina gën a soqaliku du Sénégal c'est ci Île à itam lu ni mel lañ fa gis carré de concertation bi nga xamante ni ci coalition Benno Bokk Yaakaar la ne téeméer bu demet jiite ko amal ak i wërngal jeexal seeni ndaje ci benn meeting ginnaaw ba ñu demee ca Daara de Demet Paté Gallo ak Dugel fii nag li liñ fi bëgg bokk na ci téeméer ak ñaar fukki junni ectare yi nga xamante ni Île à Morphil am na ko ñu gën a dooleel ay meññantalam. Île à Morphil ñëpp xam na ni téeméer junni ak ñaar fukki junni ci ay hectares la am moo tax nag li nga xamante ni mooy ay dañ ko war a gën a soqali gën ko yaakaar nañu ni président Macky Sall taxaw na ci def na ci liggéey bu am solo ak ni mu nekkee ci bopp nguur gi Ile Amorphile dina gën a soqali. ndar géej coalition yi jeexal nañu seen i ndaje yi nga xamante ni doon nañ ko amal ci wàllug élection législative ci atum 2017 bile fii nag violence biñ ci nemmeeku ca lew na la amee kenn ci waa parti démocratique sénégalais ak waa APR ñoo doon jàppante baam sax ay gaañu gaañu yoo xamante ni am na ca. ginnaaw bi mu tekkee ndomba tànkam ci biir alliance pour la république ki fi nekkoon jëwlin ci wàllu énergie Thierno Alassane Sall dem nag daje ji ak militant am ngir rek yegge leen li tax mu jël boobee dogal moom nag ëllëgëm bëggu cee addu Cheikh Anta Diop Seylati Thierno Alassane Sall wan ginaaw waa APR na démissionné na ci ginnaaw si la dem quartier fi nga xamante ne moom mooy Grand Thiès quartier jàkkay Tukulëër fii de daanaka moom mooy màkkaanam bi gën a màgg te it yu bari de fii lañu ko daan fekk ñu teeru ko. mu am ak ñoom waxtaan ci ab assemblée générale yuppi na li nga xamante ne moom moo nekkoon ci dënnam. dama ne koo xam ne munoo defar ay carte d'identité moonte Ablaye Wade defaroon na fi ay carte d'identité def fi ay carte d'électeur te waaye waaye malgré réussir woon na loolu échoué na woon na ci la ca ma ne ma ne ku munul defar carte d'électeur munoo ko distribuer à temps munoo organiser ba gars yi ñoo ma ko suux suuxlu yooyu moom gars ko suuxlu bu ngeen tabaxee ay miiru stade ñu daanu kooku munoo développer ab réew. gis nañu ay entrepreneur sax yoo xam ne dañu bàyyi seen chantier ñu ubbi ay bureau fii ci Grand Thiès pour mun a fexe ba wëlbati conscience su waa Grand Thiès ndax xam nañu xam nañu ma ni bu doon liggéeyu politique kese. amul benn façon bu bennoo bokk yaakaar di gagné centre yi ma lim. ki fi nekkoon coordonnateur des cadres républicains ak coordonnateur communal APR fi ci diwaanu Thiès. ci kalamu ay militam ay xaritam ay am di jàmbam nee na de génn bi mu génn ci APR du tax mu bàyyi politique. dina tabb beneen kuréel yoo xamante ni dina ci ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk gëm-gëm ngir wëyal xeexam. lu jëm euh, ci wàllu nag euh, xibaar yi nga xamante ni ñu ko doon joxe fii ci diwaanu Thiès ne Thierno Alassane Sall dafa am ñu muy lëngool ngir xeex Macky Sall nee na de joxewul benn consigne de vote te loole na leer ci bopp nit ñi. ñu des boobu ba léegi ca Thiès euh, tête de liste coalition convergence patriotique pour la justice et l'équité di Diop si moom it. nga xamante ni tête de listam ca Tiwaawoon dafa rek euh, bàyyi dem fekki mouvance présidentielle bi ñaawlu na ko ba tax na mu ne politique dafa war a ànd ak jikko yu di moral ñu déglu ko ci micro Cheikh Anta Diop Seylatir Demba Diop si nekk tête de liste bu convergence patriotique pour la justice et l'équité nay leer mbooloo mu bari teeru ko fii ci quartier Medina Fall fii de tête de liste départementalam fii ci Thiès moom moo fi dëkk moom sax yëkkati nay kàddum jëmale ko ci ki nga xamante ne jamono yi muy Matar Diouf nekk tête de departemental départementale fële ca diwaanu Tiwaawan mi nga xamante ne dafa démissionné dem ci waa Benno Bokk Yaakaar nee na loolu de yëngalu ko te it dina jokkoo commission électorale nationale autonome ngir ñu mandargal ko. moo dem wuti extrait de moo wut casier judiciaire am mu wut ay këyitam yëpp ñëw déposé si ñuy joxe kon bu xëyee démissionné moom moo xam la moo tax mu démissionné ngor nag dafa jeex si dëkk. mais bu tëddee guddi ba xalaat boppam dana xam ne que lii mu def waru woo ko waru ko woon a jëf ndax ñun jiwuñu ko ko. ci beneen wet nag tête de liste nationale convergence patriotique pour la justice moom nag mi ngi sàkku nak ci nguur gi mu amal ay waxtaan ngir nag carte yu jëkk yi nga xamante moom lañ doon wotee ñëpp mën cee d'accord ñu mën cee wotee. xale ne dafa am 18 ans mësta am carte mu xëy suba déposé carte d'identité ñu jox ko récépissé mu yor ko récépissé code te mun a am carte d'identité parce que carte d'identité am génnagul mosu ko koo laaj kooku naka lay voté ki ci des mooy mag mi nga xam ni carte d'identité am dafa réer mu ñëw di defaraat carte d'identité bu bees ñu defal ko ñu ne ko léegi boo bëggee am kii da ngay indi extrait de naissance kooku it bu ñëwee naka lay voté ndax bu ñëwee extrait de naissance dina voté wala wala leneen bu fekkee tamit ku ci am extrait de naissance parce que gisuma ko tamit li mu bind. gis gisuma ñu yokk ci extrait de naissance te bi ñuy bi ñuy bi ñuy déposé yi dañuy wax ko am extrait de naissance boo ñëwee mën ngaa am carte kon loolu vraiment loolu mooy sama jaaxle ci li ñuy wax mais vraiment yaakaar naa ni bu nit ñi demee jëli seen i carte defe naa ni coow bi lu muy bëri bëri yëpp coow bi dina gën a wàññeeku. Demba Diop si nag ñu gis ni entreprise am bi nga xamante day yëngu lu jëm ci wàllu mbalit mi nee na de jël na nag ay jigéen yu bëri ak ay ndaw ñuy liggéey ci entreprise bi fii ci di Thiès te it ñaari robinet ne samp na ko ci quartier bi ndaxte dafa gis ne quartier bi nag dañoo am jafe-jafeem ndox lu jëm nag ci wàllu wér-gu-yaram it nee na dugal na ci loxoom ne nag am na am ambulance médicalisée boo xamante ne may na ko waa poste de santé bu Medina Fall askan wi génnoon bëgg lool ci li jàppale bi nga xamante ne mi ngi leen koy jàppale ci quartier bi ajak màkk boo sàgganul juróom-ñetti ujaa a ngi nii duñ dem ñoom ñu nga dëkk ca Tëngéej la ko waral mooy dañoo am jafe-jafe ak kër ga xamante ni moom moo leen war yóbbu ba tax na ñoom joxoñ leen baaraamu tuuma googu kër jàpp ni daal dafa am ay labac lu dox ci diggante ñu déglu soxna ma jigéen Mbeng Mbay moom moo wax seen tur ci micro Ousseynou Thiam Bira Diagne GIE euh, Moustahim Hajj et Omra bu Tëngéej demandé am quota pour di yóbbu ay pèlerin ñu may ñu ko ñu jox ñu ñu ne ñu mën ngeen a yóbbu ba fukki ujaaj ak juróom bi ñu leen joxee six pèlerins yi war a jëkk a dem muy si suñu biir ñun ñu nangu ko septième bi ñu ne fees na quota wu transtour yëpp compris muy waaw loolu ñun mën ñu comprendre ma ne transtour moo feesal mais mustaqim ak et umra feesagul parce que ñun siis ak lañu dëggalugu fii daal laa toll ci problème bi ay Gueye bu Transtour ak personnel am bañ na duñu jël sama pèlerin yi nga xamante ni ci sama agence la ñu ñëw ñëpp mat na ñëpp versé nañu seen xaalis mu ngi nii seen dossier yaa ngi nii defal naa leen seen dossier ba mu mat fay naa sax taxe saoudienne ñu ma triandé ba pare ponk bu mujj ci xibaar yi li gën a fës ci yenn kaay la ñu ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf juróom-ñaari suisse ca conseil constitutionnel yëngalati nañu réew mi ubbi leen le quotidien li leen président Macky Sall si siroon doon leen wax ngeen ñu wax ñi amul dentité te war a woote ñu bàyyi leen ñu wooteeg seeni récépissé passeport ba dentité yu njëkk ya li ko conseil constitutionnel tontu moo naqare ñu bari ñu yëngu ci géeyu politique bi coow lu bi di Manko Taxawu Sénégal nee nañu conseil constitutionnel na jàll ca ñag ba akub saret lañu ko def quotidien nañu ñi fara ci société civile yi moo di waxtaan ba déggoo gi ci am soleil national xëy ñu fàttali ci mu njëkk li conseil constitutionnel tontu président Macky Sall juróom-ñaari sage ya ca conseil constitutionnel walide nañu requête bi leen njiit réew mi joxoon ko journal bi bindee ci xëta mu njëkk léegi d'identité yu njëkk yaak passeport yaak récépissé yi mën nañoo woote vox populi nañu suñu moytuwul nag récépissé yooyee ñoo nar a indi coow ci réew mi ndax du kayit wóor ku jëg politique gi nag ñoom nee nañu duñu nangu kenn di woote ak lenn lu bokkut ak carte électeur l'observateur nañu dogal boobee waa conseil constitutionnel joxe dana tax lu mat juróom-ñaar téeméeri junniy doomi aadama mën a woote ndax ci lim boobee ca la ñu natt ñi jotagul seen identité biométrique Moussa Touré ni mbir yeeg fi ñu toll tembe faw ñëpp dañuy àndandoo xool ay pexe ki yoon ñu xettalee Macky Sall ni mbir yi tar na ci moom conseil constitutionnel ak li mu wax président Macky Sall su du jeexee ñu bindal lépp ci xët mu njëkk ba noppi tegal ñu ci ne coow la fi yëndi Alaaji Malick Gakou ak waa Manko su du quotidien nañu nee nañu li ñu bëgg def lu bon lay doon ci démocratie réew mi ba tax nañu waa Manko ak waa watu Sénégal nee nañu bañuñu ci dara bu su wotee duñu nangu kenn kuy jalgati loi électorale bi réew mi quotidien nañu opposition bi plan de riposte lañu ñu teg enquête yi ne kay nañu élection législative yi dimanche yi sagara nga cay xeeñ ndax dara xewagul waa Manko taxaw Sénégal ñoo ngi wax ay fraude ak ay résultats yu ñu fabriqué ba teg la sine kay nañu cafouillage jaxasoo dëgg la organisation élection yi def yéenekaay bi xëy ci njëkk photo bu Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur ak sécurité publique photo bu Ibrahima Diallo ak bu Thiendella Fall direct info nañu li am ba des daal moo di yàqati nañu xaalis bu dul jeex ci organisation élection yi juróom fukki milliards yu dem ci Mali foro journal bi gis ne ab audit ca daaf naa am ministre intérieur ak daafit dañoo war a démissionner ñoom kenn gënu ko sonn ci campagne bi mu di Mame Mbaye Niang ministre de la jeunesse waxtaan wu yàlla xëy def ci enquête kaay bi leen bi jafe-jafe yi ñuy wax ci séddalam carte d'identité biométrique gi Dakar lépp ministre de la jeunesse ak construction citoyenne wax na ca mu di Mame Mbaye Niang nee na constitution bi moo gën a kawe loi électorale bi ndax bu nit amee sañ-sañ ak mën-mënu mën a woote constitution bi moo tax kon nañu respecté constitution réew mi tey jëfe li mu santaane Mame Mbaye Niang ne opposition bi kaa wala ñu bëgg andi ci réew mi waaye dañuy sonal seen bopp rek ne duñ leen ci seetaan tey duñ leen ko may Abdoulaye Wade mayeeti na beneen leen Les Échos góor gi nee na ba muy jugee ca palais ba 700 000 francs kese la woon ci xaalis capital intérêt réuni benn roi moo ko may juróomi Dakar ca Ndiassane fa la waxee loolee réew mi quotidien l'observateur ak direct info nañu waaye moom Abdoulaye Wade dit démb jooy na jooy yu rëy ca place de France bu kees libération ñu démb it Ibn Abdallah Dionne tête de coalition nationale Benno Bokk Yaakaar wax na ko moom Abdoulaye Wade lu jara jooy ba dee tête de liste Benno Bokk Yaakaar bi karawaan la doon def démb ci mbeddi Ndakaaru yi ca la ne labaj ak jalgati élection bu mënoon a nekk Abdoulaye Wade du folle ko ñaata bakkan ñoo rot ci réew moom Abdoulaye Wade Macky Sall yóbbu na ko retraite mu lànk ne duñu pulu ji ndax leen rek ko ñor mu di doom ju góor ji Mouhamad Dionne ne li ma koy xelal moom Abdoulaye Wade moo di na wutu piliyaanam jaaxaan ci nuppalu ji wut kurusam ak kaamilam di ca jaamu yàlla ndax looloo ko desee moom Mohamed Ibn Abdallah Dionne tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar libération nañu démb bi mu daje ak Amadou Ba mi tête de liste ci diiwaanu Ndakaaru li mu ko wax moo di mobilisation bu rëy bekk mbooloo mu bari mi li muy wane mooy yaay borom Ndakaaru Ndakaaru yaa fi teg tànk L'Observateur tax nañu moom Boun Dionne ak waa Benno Bokk Yaakaar gi yëpp tey ji ñoo ca Géejawaay fa la ñuy tëjee seenub campagne meeting de clôture bi fa la l'observateur nañu waaye bu ay changement de dernière minute amul ci yëf yi meetingu tey bi nar na am ñaari gan yu mag te màgg Marième Faye première dame bu ak milliardaire bii di Arona Dia ñoo ngi leen di xaar ca meeting ba dañoo bëgg a dem jàppale ji Benno Bokk Yaakaar ca seen meeting de clôture ba la si nañu meetingu Benno Bokk Yaakaar bi woon démb ci stade Amadou géew bi bàkku fa lu rëy. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi fii la yem ak yéen ci xibaar ñi ngi leen sant di leen gërëm ci ànd bi di leen jox daje ci kanam ci tàkkusaan seen émission réeru campagne jërë ngeen jëf.